dali na jàmm ñu ànd xëy yër yéen kaay ñu xëyandoo yéen kaay gii di réew mi quotidien vox populi ak le témoin ñu xëy di ñu xamal naan ñu njiitu réew mi di président Macky Sall ni ki démb demoon na Tiwaawan a jàll Cenaba ngir nag yóbbu am njaalam ginnaaw bi Serigne Pape Malick Sy génne àdduna ak xalifa bu Cenaba di Cheikh Ahmed Tidiane Seck journal bi mu ñu xamal naan ñu Macky Sall ba mu demee daat nay sëngéem wax ne naqar wi ak tiis yi maanaam bokk nañu ko ak yéen waaye di ko jàll mboolem bi journal bi di réew mi quotidien mu ñu xamal mu jaalee ba pare Tiwaawan Serigne Mbaye Sy Mansour maanaam Macky Sall Serigne bi wax na ko ay dëggam nee na ko jàngoroy coronavirus mbir la moo xamante ni mu day war la faagaagal na adduna bi yëpp moo tax ci réewum senegal matukaay yi dañu ko war a jël ba mu mët sëkk te amul benn yox-yox yi boo xam ne maanaam war na se am ba tey ci biir yéen a kaay gii di réew mi ko dëjee mu ñu xamal naa ñu Serigne bay Sy Mansour daan nay wax Macky Sall na ko mbooleem loo xamante ni ay dëgg la nga war ko wax askan wi maanaam wax ko askan wi ba mu mët sëkk ci le témoin moom Serigne Mbaye Sy Mansour ñaawlu bu baax a baax bàyyeeku xamante ni askanu Sénégal bàyyeeku nañ ko ci lu jëm ci mbirum coronavirus ndax sëriñ bi nee na maanaam li nga xam ne mooy danger bi ba léegi nii ma ngi fi yéen a kaay gii di Walf Fadjri mu xëy di ñu xamal lan ñu Moustapha Cissé Lo ak kàddu yi nga xam ne maanaam yëkkati woon na ko fii am na beneen audio boo xam ne maanaam su génnee ba tasaaroo ci mbedd mi république bi si bopp mooy toj ndax am na lu mu wax ci lu jëm ci yeesalaata building administratif ak njublang yi nga xam ne ma nga ca ak lu jëm ci financement ANPJ ak lu jëm ci délégation de l'entrepreneuriat rapide maanaam DER Moustapha Cissé maanaam wax na ci ay révélation yu doy waar yoo xamante ne yu bees tàq la yéen kaay gi di réew mi quotidien ak Dakar Times xëy nag ci rapportu IG bi maanaam inspection générale d'État rapport bi nga xamante ni génn na ko ak njublang yi nga xam ne ma ngi ci en tout cas njublang yi bëri na tooxi doona yi bëri na maanaam musiba ma bokkumba yu rëy moo ci feeñ journal bi nee na am na ay ministère ak i agence ak i collectivité territoriale yoo xam ne maanaam jàpp nañ leen ci yorinu bon journal bi di Vox Populi mu xëy di ñu xamal na ñun ni nga xam ne moom la ñuy commandé oto yi ak ni ñu koy jëfandikoo inspection générale maanaam gis nañu si ay luqu njur ay luqu njur yoo xam ne maanaam doy na waar loola yéen kaay gii di libération nee na nag rapport bi nga xam ne IG génn na ko kenn ndax ñoom fexe nañu ba nag waa Expresso am huit milliards yoo xam ne tegewul ci yoon Aprosi ak lu toll ci soixante-dix-huit employés yoo xam ne fantôme la ci bi ñu dénk wàllum caare gi journal bi nee na ministère de l'enseignement supérieur foofee tamit gis nañu fa ay mbuxum yoo xam ne maanaam doy na waar lool lool yéen kaay gii di la témoin mu ñu xamal ñu en tout bi li mu génne ci ay tojaange bëri na ñi nga xam nañu ñooy waa Descos ak di waa Fera ak ay grande mairie ak ay dash yu bëri yoo xam ne maanaam gis nañu fa ay njublang 24 heures yéen a kay mu ñu xamal nañu lu jëm ci wàllum tâtonnement wàllum làmbatu maanaam Macky Sall champion la si ak lu jëm ci wàllum njaaxum ay magu yu neen la ñu gis ci nag sommet de l'État maanaam ci njobbaxtalu état gi gis nañ ne ay luqanjur ak i tojaange yu rëy ki scandale maanaam am na ci yéen a kay gii di Dakar Times xëy nag ci lu jëm ci wàllum kéwél gi nga xamante ni coow li topp na Abdou Karim Sall Sall mi nga xam ne dañoo wax ne moo ko jël Ranérou ci anam boo xamante ni jaarul yoon ba am ay kéwul yoo xam ne jot nañu see faatu journal bi nee na loolee moo metti Abdoulaye Wade ba mu wax waa PDS ñu daal di porte fas yéene dem ci kanamu procureur yéen kaay gi de Les Échos nee na lu jëm ci mbirum Petro-Tim doyen des juges jamono ji toppatul kenn amul lenn loo xam ne maanaam gàll na ko ci ndodul Aliou sal journal bi de La Tribune mu ñu xamal ñu attention mouton corona jamono ji cas communautaire yi nee na cobbay ci réew mi te nag jamono ji tabaski gi ma ngi door te ñëpp la ñuy wax yéen kaay gi di réew mi quotidien mu daal di xëy ñëw ci tabaski gi nga xam ne maanaam li ci des bëreetul ak xale yu jigéen yi nga xam ne maanaam ñooy mbaraan mbaraan mi jamono ci ma ngi mel tulleeg man la ci réew mi xale yu jigéen yi li tax ñuy mbaraan ngir am jesner ngir am cheveux naturel ngir nag am xaalis boo xamante ni danañu si mën a fay ñaw journal bi nee na am na si nag ñoo xam ne joxe na ñu si ay témoignage yu doy waara doy waara moodu nee na jigéen ñi pare nañ ngir lépp ngir am jesner ngir am cheveux naturel moodu boutique cosmétique la yor nee na am na benn xale bu jigéen boo xam ne dafa ñëwoon place am di waxtaan moom ba mu yàgg mu koy rogo loxo bi di ko raay wax ko na ko Moodu xanaa bëggoo ñu dem seen kër ma toppatoo la garafaas rek la bëgg manga moom dafa wax benn waay boo xam ne buti la yor ne ko cinquante mille laa soxla ngir nag fay si sama tayër ñu def ba mu baax marché ma H&M am na benn xali bu góor boo xam ne la mu xam ne nee na nag événement bu jub see xale yu jigéen ñi dañuy ñëw waaye nag ñun dañu ko ñàkkante ak ñoom ndax xam nañu lépp xale yu jigéen ñi ni nga xam ne moom la ñuy mbaraane stade yéen dikk na ci victoire bi nga xam ne ni ki démb Real Madrid daan na koy am alxamis bi nga xam ne moom la ñu dëgmal su dóoree Villarreal daal di jël championnat bi journal bi di sunu làmb mu xëy di ñu xamal naan ñu tafaatina mbërum bawol mi maanaam bëri na ay yoo xam ne ay année blanche la ko def tafaatin jamono ji yoratul dërëma moo tax pare na ngir combat bu ñu ko jox mu bëree tafaatin jamono ji journal bi nee na maanaam mooy moor yombale